xayril maxduubi alayhim wala daalliin asalaamaaleykum taala wa barakaatu yéen mbokki nekk ci bitim réew mboolem pëcc eh, yi nga xam ne yoone ci eh, ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi nag alxalifatul aam muy seex mu muntaxa ayadahu llahu wa nasarahu wa tamma muraada di leen jot it bu baax nu yóbbu sëriñ seex mbakke xalifub sëriñ abdul xaadir mbakke mi ci toog toogi ci jataayam kàddu yi nag li ko waral mooy dafa dama baaxoo dama baaxoon ci at yi at mu jot waxtu yi dama fekk ci bitim réew ma nekk di gane ji bi yi te ren nag sun borom andi ab dogalam boo xam ne mooy lim lim mooy lii nu toll bi moo tax nag biñ ko déggee ba nu toll ñi ngi ñaan ñi ngi ñaan lu ci ki nga xam ne mooy sëriñ bi rek mooy suñu yaakaar di ñaanal mboolem taarib yi di ñaanal mbooleem jullit yi te ñaan gi ñu di ko taasu rek ci ñaani Sëriñ Tuubaa yi rek ci xasidaam yi ak ci alxuraan ji rek di di gën waxit ñun ñëpp ni ñu ko digalee té ki nekkal sëñ bi digal yasaran digal it nañ ci gëna a moy jang alquran jang khasida ndax sëñ bi lu mata fagu rek fagu nako lu mata a ñaanit ñaan nako ay gis nga lu lu nuru li mbass mi nga xamne mo amon ci muy ñu wax peste bam mu amna fi diir way sëñ bay jaxati mo mujj def khasida jox ko sëñ bi waxal ne ko ne ko waxal nag ci mbas mi sëriñ ñaa ngi jeex dellu waxaat ko ci weneen ci beneen bayit ba ne ko ba ab sàmm ne cell jur gépp jeex gépp jeexee lu mu sàmm lu muy sàmm kon sëñ bi xarit ko nettali nee na ba ba way wa sëñ bi yëgee yàlla daal di jeexal mbas mi mel ne guerre mondiale bi sëñ Saliou daanañu ko nettali bi mu demee ba metti ba nga xam ne ñuy njëkk a yóbbu ñëpp sëñ Moodu sëñ Fallu Fall ñoom ñëpp ci lañ xalifa maam Cheikh ki ci magoon ci doomam ñëpp ci lañu àndoon ak eh, alaaji taawam ci la demoon ñëpp ñi Sénégal ñi njëkkoon yëpp ñëpp daanaka noonu lañ ci toll waaye bañ del siyaati bu wax ko sëñ ah loolu nag war kon nag war nañ cee jóg kon ne war nañ cee jóg rek la geeru jeex kon nag ba wuur ba waroon a demaat ba tey jël nañu leen ci ba tey ba waaye ba bañ leen di jël rek lañ ne guerre bi jeex na kon sëñ bi man na boppam tëliwut boppam te loo xam joti fu ne nañ ñaan rek liñ bëgg nañ koy wax rek te boo koy ñaan sëñ Saliou nee na nee sëñ bi boo koy na jëlee ci mag mu wér mu sëñ boo koy ñaan bu bu tëliwut dara yàlla kon nee sëñ bi moo wax ne bu yàlla tëliwut dara. boo koy ñaan wax ko li nga bëgg rek kon nak ma ngi tassu rek ci barkeb xasidaam yi khassidi yi way ni di ci ñaan rek yalla deugul yaakar yi ni ñi te andi jam bu baax te yëkkati niñ ko niñ ko niñ ko ron ñaané rek ñun ñepp nañ way ci liko ko non rek yalla yëkëti bala bi ndax mom mi ko ko ko gis xamne mbirum yalla la waye señ doom nañ tass ci eh, lii mu doon ñaan rek lim doon ñaan moo wasqal xidaaka bi siwaa maa yufsidu nahja nabiyika wa dut man xasadu wasqal xidaaka bi xidaaka wasrifi quluubahum an durri di taarufi wasrif quluuba almusrikiina li siwaa durri alladina ahsanu mahan siwaa mahan sawaa واشغل عبادك بفعل الأمر لا باقتهام النحي يا الأمر كن نيت nañ way ci lool rek mooy nañ na ci ndigal yàlla yow te bañ ko boole dara mooy ko sëñ bi ñaane waltuf bi abdika waltuf bi abdika alxadimi wasrifi li gayrihi ma saahu yansarifi wahab lahu lutfan jamilan wahabi له مراده بغير بغير رهب واصرف بجاه المنتهى للأمة إغاثة تكفي الأذى والغمة ليس لأمة النبي سواك يا واحدا اكثرت لي جدواك كوكو فاتيوت خيت يونت بنيم لك توجه يفيس اليوم ادلب خيرك لخير القوم وجه لأمة النبي المشفح صلي عليه مغنيا عن مدفع ماغي نيان رك نيغي نيان فرج بجاه المصطفى عن أمتي يا مخرجا عبدك ذا من غمتي اكتب صلاة وسلاما للنبي إلى والصحب ذوي التجنب سلم بجاهه وجاه مها أمته يا واحدا لخمها تفضلا على ذوي الإيمان بفرج يا, يا واهب الأمان جميل أوصل لجميع المسلمين والمسلمات أمن رب العالمين اكتب صفاء لجميع المحسنين والمحسنات يا ولي المؤمنين بالله والرحمن والرحيم هب لمن يحبونك لمن يحبونك ما يمرب لوجهك الكريم وجه فرجاء بلا أثن لمن يديمون الرجاء حبيزه الإيمان والإسلام خير بشارات بلا ملامي ما تدر عبدك الخديم يا خير من يزول بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبالشكر وبحق وجهك الكريم هب له إجابة يا من محوت قبله بالله والرحمن والرحيم يا من بقريب ومجيب سميا هب للذين آمنوا وأزلموا فراق فنة الذين ظلموا مصليا مسلما على على رسول في حزبي يا من هباني بسول ربي بما يشرح اللذهان قد فجاء بجاه أفضل من لله قد فجاء حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساطعا ملا محمد صلوات الله في أبد عليه في حسبه كل به كلا أطع إله الذي عمل مواهبه لزملة الخلق ما يختار من برا ناجيته جل أحواما وكرمني تكريم هاد وكل من لغن بريا رحمن حبل جميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ والأمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدا يا مالك الملك يا من جل عن قود يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هادي الردى ما هو ما خنها القلب من ضرر بجاه او دائما لله قد نجئ هيال المصطفى بعد سلام مع سلام من عداهم القلى يسير لهم به الذي تعسر كل ما يسرت وتيسر ناجاك عبدك خديم عبدك متجئا إلى المنى من عندك ونجنا من شر هذا الزمن وسر غيره وكل فتن والتقنا شر النصارى واليهود والشر إبليس وكل ذي جهد والجن والدجال والسودان في الساق والمغرب والبيدان وشر ما في الأرض طرا والسماء من ظاهر وباطن اكتتما يا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قد لنجاة وفلاح ووفقنا لصواب وصلاح ولتغرنا بفعل ما أحببت ولتكفنا عن فعل ما أبغلت ولا تكن مبتليا منا دهرا بما ليس يطيق يا صم kon يالنا yàlla na li sëñ bi لدفن foofu rek yàlla na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 ci barkeb sëñ Tuubaa salaamaaleykum yéene waale nañ nag ci ci ci ñaan gi ak ci waxtu wu ne mboolem fukk taalib bi mën a ne rek ci bitim réew ak ci ne ci ñi ci biir réew mi ci dara ji sëñ Tuubaa mi nga xam ne loxoom joti na fépp te sàgganut ci ñaanam ci lenn lu mat ñaan rek ñaan na ko lu mat a fàggu fàggu na sëñ Abdou Khadre daanaka wax na jërë ngeen يا سميع يا بصير